voilà benn fas rek moom moo ci dese ni moo war a rang ci koox di numéro 13 nekk fas yi nga xamante ne nii. parcourir 14 partants pour une distance de 2200 mètres à parcourir les euh, euh, am na un bon départ pour le tour de tête mais duma yéen Mais ko ki nga ni nii moom Dalinko le numéro 13 ñëw na actuellement en troisième position Les moo Monique en première position deuxième position duma troisième position Dalinko quatrième position qui fa avec moom la Lat Fatim en cinquième position voilà qui est xamante ni moom moo fa le numéro 4 de Amine Ambiwul moo jiital fas yi dafa ma complètement waaye ki nga xamante ne moo génn mooy Ndeye Fama nag ñu ngi toog Der waaye nag daal nañ ko ñëw na remplacer Dovis nga xam ne mooy Doumbouyène ñi si des ñëpp nag ñi nga def benn dal waaye nga xam ne nga xamante ne mooy toog en dixième position nga xamante moo génn ba tey mooy Ndeye Famaten ki nga xamante moo génn ba tey mooy Ndeye Famaten suivi na fas bi nga xamante ne mooy Dalingkoor ak Doumbouyène ak ki nga xamante ne mooy Ndiouga Fall ñoo ne quatrième position toog Ndof ak ki nga xamante am nañ li nga xamante ne moom mooy mille mètres nga xamante ne bu ñu ñëwee dañuy delluwaat ñëwaat doog a téye waaye ba tey nga xamante ne moom mooy génn mooy Ndeye Samba Deme suivi de Dalinkoor Ndiouga Fall troisième position Lat Fatim quatrième position Nouvalo cinquième position major ak adjudant ñu ngi si biir pour arrage bi waaye ak ki nga xamante ne mooy Auguste mu ngi si biir Fassi mais ba tey Ndeye Samba Deme moo génn laxaat ak dara am na muy suivi de Dalinkoor tamit di bàyyi. ñu jub li nga xamante ne ni moom mooy tournoi le professeur Sakhir Thiam bi moom Ndeye Samba Deme Ndeye Samba en première position deuxième position euh, Dalinkoor

en première position ànd ak ki nga xamante ni moom mooy boleh beli te lan nga di di di wax gars yi ñu gën a abonné di wax sponsor tamit ñu daal di ñëw wax dëgg yàlla parce que li nga xamante ne moom ay xale ñoo ci nekk di ci góorgóorlu pour développer développement li nga xamante ne mooy course yi pour indi seen touche ci li nga xamante ne mooy course hippique wax dëgg yàlla di sant ñëpp di gërëm ñëpp organisation CNG course hippique président commission organisation Dollar Fall ñoo ngi koy félicité ci organisation bi baax a baax a baax moom ñu mu ci àndal waaye président communication marketing Père Diawara ak ki nga xamante moom mooy Sid Ndaw ñom tamit ñu ngi leen féliciter di leen di leen jaajeufal di féliciter pour le président CNG ci li nga xamantene moy deux journées yi nga xamantene dawagum nañ ko di féliciter tout le monde di wax ne dal né sponsor yi japp ci di féliciter ak di remercier suñu ñenn ño xamantene wax deug yalla ñong ci japp bu baax baaxa baax te mënu tuddu seen tour ndax wax deug yalla dañuy def rek ta yalla tax di way di leen remercier yeen ñep vraiment équipe la bo xamantene ne xaarul dara ci liggéey bi ngir rek li nga xamantene moy développement gorsu au contraire dañuy gën yëkkati suñu ay xaaliss di ci def tous les dimanches yombul ñoo ngi ñaan nag xam nga affaire yëpp mën a dox fii ak quelque temps bu ko defee liggéey bi gën a ñoŋal ndax gis ngeen chaque dimanche li ñuy indi tey indil nañ leen doron dimanche bii di ñëw bëgg nañ leen indi leneen loo xamante ne lu bees tàq la kon jërëjëf ñu leen jox di daje mardi incha allah seen émission évaluation buñ si jugee jeudi ngeen am li nga xamante ne mooy programme bi après dimanche ñu daal dajawaat fii incha bu ko yàlla dogalee jërë ngeen